foofu mën nañ wax ni mbir xew na. mais dafa am lu am parce que dama dégg coach bi génn ne dafa toog ak salaa ba yàgg salaa ne ko laisse-moi seul na ne ko non Salah man je ne peux pas te laisser seul mënu ma laa bàyyi seul Salah ne ko pourquoi mu ne ko parce que am na ñoo xam ne bu ñuy weddi xaru. ah mënu ko bàyyi seul. kon yëg na way wi. egg na Liverpool. am na ñoo xam ne bu ñuy weddi xaru yëg na ko. am na ñoo xam ne bu ñuy weddi xaru yëg na Liverpool coach bee ko wax salaa xam nga toi dafa tàmmoon il faut me laisser seul laisse moi seul. waaw bi Salah ñëwee. gars yi ñëw naa ko waaw 10 courage ak 50 courage ak 10 courage 11 courage yooyu. Mhm. Salah ne waa coach bi il faut me laisser seul quoi. coach ne ko je ne oh. am na ñoo xam ne bu nuy wéy di xaru. mooy. seen fii du neex. <laughs> man Capo dama laa bëgg. ndax nag. Hmm. dangaa xam xam gëndaj temps ak raaj temps hmm. di ko teg ci temps. te it tubaab boobu. Hmm. xaw ma nu mu tudd. waaye bu buñ ko woowalee mu ñëw fii Sénégal danoon ko eh, teeral. comme salaa xam naa ne comme ça xelam dafa ci ay xaroog ñàkk xaru yooyu noonu. Hmm. ndax coupe d'Afrique bi ñàkk mën na am dañoo bañ indi beneen ampleur di yeewaat xelam ci coupe d'Afrique beeg yooyu xam nga Salah xam nga xelam mën na dellu ci ay nation am nuñ ko waroon teeroo affaire yooyu fekkoon ma jël coupe bi te comme loolu amul xëy na loolu la ñuy daw rek moo tax teeruñu saa waa ji. muy hmm. daal c'est à voir daal d'ici mercredi bu ñu ñëwee. cas yooyu dañ ko war a lux mbataat xool ko bu baax a baax. fu mu toll. Mm. mais lii gën a garaaw ci ci kaan bi saajo maane ak ak kii nii euh, Salah laalante nañ ci terrain bi. laalante waaw. danoo dof bay di laalante. laalante yëpp góor jigéen yooyu mooy la. déedéet laalante ah, maanaam accorsage. Ah. maanaam ko ay ko fañ. ok maanaam bi bi mm. ki xaw ma tabaski wi. tabaski voilà tabaski la. du gabaski sax gabarsin waaw tabaski. waaw. Mm. mooy maa bi Sadio maane war a tiré penalty bi. Ah, xam nga bi mu demee ci xam nga Salah doon na waxtaan ak kële. waaw ma Sadio Mané ak am fulla. <laughs> deretu sénégalais bi moo yëngu mu nekk Salah demul fële xaar bu duma sa morom. Sadio moo ma woo muy dóor pelanti bi. di nga bi ma ma ne ko bul may Salah dara. Mhm. demal fa mu taxaw di wax góor bi nga ne ko yow demal nga taxaw rek. voilà ma ne ko soo jëlee bal bi dóor ko mu mu génn mooy sarax bi nga xamante ni eh, moom mooy saraxu final bi looloo waral Sadio dóor bal bi fële waaye du leneen de. bi saa bi saa maa ko digal loolu. Mm. en tant que ah, ah, ah, liet naa allo 17. Mm. ma wax loolu Sadio def loolu te bu deful woon loolu. Mm. du demee ni loolu moom pas de euh, euh, commentaire noonu la demee. yow mii maa <coughs> dama ko takkal micro boo xamante ni achef la ci biir mayo bi laa koy def su écoute bi écoute bu ndaw la dama koy monter ci biir kii bi daf may dégg saa su ne xama doom la. yaa ma si doy. fi ba Casamance taw. feta mm. eh, ah yaa ma si doy ayca derka da ngay ubbi antenne bi nak gaay yi ñoo ngi kaas ah. ni nañ bëgg dañu dugg ci émission bi comme niñ ñu leen ko waxé allo 17 max fassen mu ngi lay nuy max fassen maa koy fay ñong koy fay <laughs> max ñong koy fay mang koy fay léegi ama max mang koy fay bu baax max waaw maa koy fay suñu jigen suñu xarit ah. waaw am <laughs> ah, mom dafa am mom lool sax du ka ndax triple kaal ndax Max Verstappen. Hmm. ah. lalaa de ku ne xam na ni xewoon na fi waaye xel eh, xewin. Hmm. parfum de chambre yu bees yi nga xamante ni dafa génn. ay gund ak ban. ah ak yeneen ak yeneen. waaye Max. lalaale lay parfum ci dara. man Max Max plaintul de. Hmm. moom moo ma wax kaa ma war ko indi fi ñu étudier ko. Aïcha ñu ngi lay déglu. parce que kaaw Max mooy nee na góor gu mu am mu daw. góor gu mu amul ndaw moom dañ ne ba yaakaar ni moom dafa aay wala moom nangam ak nangam moom max xool na catégorie yëpp mais max gisul la moo tax xale góor yi war ko mën a daw. ndax ku hmm. ñëw këram benn yoon daw. mais li caf ka wax man sànq la sama xeet dem ci li caf ka wax. Hmm. lan moo tax ñuy daw max fashion. mooy dara bi muy sotti lalaale bi xam nga lalaale. lalaale mooy parfois yoo nga xamante ne day def cent soixante douze heures sa kaw du dañ. te waaw xet di métti bopp. bu ko dóoree foofu yi. xaw bu dee da am jabar doon labat si. booy dugg sa néeg. ñuy xam ne nekkoon nga ak jigéen lalaale gi la. lalaale maanaam ci suuf mat laa lañ koy def muy gilli muy gilli di jóg doole waaw mooy li euh, comme moom mu wis ko ci kaw comme téléspectateur yi li ma leen wax rek gis naa leen nee naa leen ñoom ñaar ñëpp kenn jubu ci parce que fi ñuy defee lalaale ñoom ñëpp a ko xam continue yow mag fi pasan sunu xarit bu waay yow salaamaaleykum allo salaamaaleykum soxna si allo allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam. allo 17 la. allo 17 la waa yaa ngi ci biir yegsil. dama bëgg wax ak ñaari bandi yooyu toog. ñu ngi nii. bandi ay yegsil. ñoo ngi nii. eh caga yow. cafka eh, la de du caga de. Eh, eh du eh caga. eh cafta du caga oh, de. eh caga. maaya maaya maaya. caga tax ma connais non. toi aussi tu caga moom buumu xar la. tabaski validé ooo tabaski validé ooo tabaski validé ooo validé. ça c'est bon ma femme là. <laughs> mais caga. on a de mouton là. Eh, tu... Il a volé le bouton de tout, il est venu me vendre ça. Oui, oui, oui, oui. Il a volé ton moton là. Jean-Michel. Eh, eh. Ah, ah, ah, Jean-Michel, quand tu parles de minette, tu connais minette Ce sont les petites lampes là qui, qui, qui, que, les caméramans montent, montent devant là. Non michel toi tu parles de minette, tu hmm? connais minette. Minette, ce sont les petites, les petites, lampes là de, de, des caméramans là. C'est ça qui est minette. des caméras, hein. toi, minette que tu connais là. Eh. Non, c'est minette caméraman. C'est minette des caméramans, c'est ça. Très bien. Les petites mini minettes comme ça là, formées carré comme ça, c'est Je vais parler de. Je vais parler de. Oui, parle. Il faut que tu parles, hein. Voilà. Maintenant, écoutez-moi. Très mm. bien. Tiens, Michel, mm-hmm. tu te rappelles ta go qui était venue à la maison là mm. Lorsque le courant est coupé là, tu vois pas, il n'y a pas de sondel, il n'y a rien dans la maison. T'as allumé quoi <laughs> J'ai le même minette Ah, le temps, tu connais Minette. Eh hey, Tchaga, eh mm. hey, <laughs>